Cheikh Baye Ndiaye boroom solution di guide spirituel al Mourchid Rouhani moo leen di ñaanal màggalug jàmm. ci ngaabu ci waañu soxna soxna Aida mu Cheikh Béthio ñu fekk fii jëwriñ Lamp jëwriñ ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di bu baax di leen santaat bu baax. jëwriñ ñi ngi ci wàccaayu magal bi naka ngeen koy waajee fii ci ci waañ bi. waaw ñu ngi santaat Serigne Saliou Mbacke bu baax. di santaat sëñ Béthio ci boole gi mu ñu booleeg Soxna Aida Saliou Thioune muy suñu wasila di suñu yaakaar tey ak ëllëg ñuy santaat bu baax boole gi sëñ Béthio boole ñoom moom mu dénk ñu waañ bii nga xam ne moo tudd waañu cofeel te universel Lamine Camara jiite ko waañu cofeel nag boo ko déggee mooy waañ bi nga xam ne moom moo yor wàllu togg gan yi ndax bëri na waañ yum teg pour sancaan yi ak ñiy toggal ñiy romb mais waañ bii mooy gan boppam yi nga xam ne ñoo jógee ci dëkk bi fu nekk ñëw ganale ko ñoom lay toggal waañ bii nga gis mooy waañu cofeel bii nga gis nii. Ah, lan mooy euh, programme bi ndax mën nañu xam euh, ñaata mbana lañ fi fas yéenee taal euh, juru màggal wala bu ne suba la màggal bi. waaw mu mel nii bi ñu mujjee réunion bi ñu mujjee daje ñu ngi jàpp 508 mbana waaw ci biir 508 mbana yooyu nag lépp lompe ni daal nit da koy lekk sa kër boo ñëwee fi da nga ko fi fekk. waaw mu mel ni muy ceebu jën yaasa domada ceebu keccax ceebu kong fumier tufe petit pois cere parce que daal bëgguñu ku ñëw ci màggalu Serigne Touba bi di fande wala ngay bañ a lekk moo tax daal lépp loo xamante ni nit ba ko gis sa kër boo ñëwee fii di ko fekk muy suppu kànja lépp loo gis da koy togg ndax da ko bañ ba ren dañu ne nañ nañu jënd suukaru jabet di ko def ci caagiri yi ak laax yi ndax day gis sax année ñi jabet di xool yëf yi te duñ ci mën a barkeelu ba ci beñe yéeg lépp waaw mel ni daal ñu ngi koy santaat moom xolam bi mu am dénk ñu lii mu toll ñu dénk ndax bi ñu estimé nag rek ci wàllum nag rek 104 nag moom la waañ bi di soxla waaw ci ñetti fanu màggal gi muy 104 nag jën yi bokkul ginaar yi bokkul kaay yi naaj yi dend yi lépp loo xamante ne lu dagan la rek dañ ko fas yéenee jëf ci màggalu Serigne Touba gi ndax Serigne Touba bi muy wax dafa ne ginaar ba gileem. waaw ginaar ba giléem nag moom moo ko dajal defee ko ni ko Serigne Touba bëggee waaw loolu mooy waral waañu jofeel moom lépp luy mëni bu nit di lekk sa kër muy ki mboroxee lu waay ba sa kër boo ñëwee fi di nga ko lekk waa ndax bëgguñu sëriñ Touba bu wootee ñin ñeeg jinne yeeg ñëpp ay dëkk moom képp ku ñëw di nga fekk lu ko matee tey di nga lekk ba suur waaw am na am na solo euh, euh, tey mu nekk màggal bu njëkk euh, ginnaaw bi nga xamante ni Cheikh Béthio génn na àdduna yéen is jamono bi naka ngeen di dundee li nga xamante ni moom absence am ci Zaire boo xam ne ni moom nekku fi ngeen di ngeen koy dund naka ngeen lan ngeen di yëg tey ci màggal bi. waaw dañuy dañuy santaat Serigne Saliou rek ndax moom nit ñi ñooy gis absence sëñ Béthio waaye ñun ñii di ay taalibeem mu dénk ñu soxna Aïda Saliou ba pare wax ñu ne ñu mooy sama dëgg-dëgg jëmm. man de absence sëñ Béthio maa ngi koy yëgee yenn saa li tax sax ma koy xaw a sentir mooy ma gis photo ñu collé ci ay jooy ñu ne mel ni dafa génn àdduna mais ñun ñu doon yëg démb tey lañ ko gën a yëg ndax doole sëñ Béthio démb tey la gën a ëpp doole te tey la gën a raw sëñ Béthio du ko fiy jug barki Serigne Saliou Mbacke waaye loolu nag ñun ñii ànd ak moom la ko dimbalee ba ñu mën koo xam amaana sax boo ñu déggee ñuy wax mun ngaa jàppee neneen waaye ñun sëñ Béthio bu fi jugee kon duñ tal togg duñ talati yàq ndax espoir bi ñu am ci àdduna fii sëñ Béthio la kon bu ñu amee sago mën koo téye ba léegi moom sëñ Béthio nekk gum fi nekk moo waral lool te mooy Soxna Aïda Diallo mii mu ñu booleel te lépp lu ñu doon yëg si sëñ Béthio ñuy raw ko yëg tey jii ndax nag yi set 7500 nag musul xew ci màggal kon loolu doole sëñ Béthio da koo wane waat waaw set 7500 waaw waaw Soxna Aïda muy daara yi mu àndal ak moom baa nga gis mu jox xalifa bi 100 nag loolu yombul. te loolu musul am jox ko gileem jox ko un million addiya loolu musul xew kon ñun duñ mës a gëm wala ñuy déglu ñu naan absence sëñ Béthio naam nag ci saayir moom dootul ñu gis jëmmam waaw waaye dëgg-dëggam mu ngi fi te ñu ngi ànd ak moom liggéey bi te lu ñuy gën a dem muy gën a leer ndax xam naa tey tàmbali la démb togg nañ tey boo gisee waañ bi nii mu feesee nii mu bëree bernde yi yaatu li yombul nga koy gis ci kër fenn te mu mel ni commencement bi ndax tey jii am na li nga fa gis nii moom jour màggal di nga dem kër sa doo fa gis lu toll nii waaye suba boo ñëwoon di nga fi gisaat leneen lonte ni lu lay yéem la jour màggal na moom damay ragal boo ñëwoon pour taxaw di wax ak yow sax du mën a nekk ndax jafe gu jafe waaw mu mel ni beñe yi zi yi duñ bàyyi dara lépp luy lu dagan nit du ko jëfandikoo dañ koy utiliser fii waaw loolu lépp dooley soxna Aida la te it kanam la jëm. alors euh, xam xam naa euh, bi mooy laaj bu mujj bi euh, ginnaaw coow li fi amoon bi Cheikh Béthio làqo ban message wala lan ngay dénk ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñooy cantaakun yi. waaw loolu moom ñun de yëguñu coow ndax ñun sëñ Béthio moo wax ak ñun ñu dégg te ñun sëriñ du Touba dimbal ñu ne du am wax buy gën a foor waxu suñ Béthio ci ñun ñun de moo ñëwoo bañ dëkk. mun ne damaa bëgg ngeen liggéeyal Serigne Touba moo tax ma boole nag soxna Aida man daal yëg naa ne bu ngeen ànd ak moom di ngeen liggéeyal Serigne Touba te yëg nañ li ñu mënoon démb dafa yokk tey te li tax mu yokk moom mu ngi ci soxna Aida moo tax ñun daanaka yëguñu sax ay wax ñun saa su nekk mu ñu ngi fi mu ñu ba waaw ñu ngi fi mu ñu ba ñu ngi xëy di gont ñu ngi teral suñuy wajur ñu ngi teral soxna yi li ñuy am ñu ngi koy bokk ak njaboot gi waaw mu mel ni daal man de wax dëgg yàlla musuma yëg ne coow am na waaw en tout cas daal li gën a sante muy fi mu ñu bàyyi daal neex nañu te saf nañu te ñu ngi fi te fi la ñuy nekk ba faw waaw muy mel ni daal moom yëguñu coow. waaw Sunugal 24 eh, mi ngi la jaajëfal. waaw maa ngi leen santaat di ñaan seen télé bi gën a jëm ci kanam waaw di leen bëggee bu baax waaw di leen wax ne ñu ngi leen di ñu ngi ñaan yéen ñëpp yëf fi yokku waaw ñu ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp jaajëf.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 al murshid ruhani moo leen di